voilà donc tey moom ay ngan olof nañuy wax kenn waxul français olof yi leen donc ñi jënd ay sénégalais lañ donc ñu ngi ci benn lii ñuy jàkkaarloo nii dinañ tuddee couveuse ganaar yi lii moo tudd couveuse maanaam fi ñuy dugal nen yi ba nen yi toj ñu ngi nii li ci bari nag dañ koy faral di jënd ji bitim réew bari na ci lool dinaa leen wan sax yéen ngi gis ci suufu écran yi yi jënd ci bitim réew mu xaw a cher lool waaye bii nag moom Pascal benn borom xam-xam bu nekk fii nii Saint-Louis lycée technique moom ak waa monsieur Diémé monsieur ak monsieur fekk nañ ci aussi euh, Bamba Bamba <laughs> donc ñoom ñoo defal lii léegi Pascal dañoo bëgg nga expliquer ñu couveuse bi noo quoi ko defee bon couveuse bi ni nga koy gisee nii euh, yaa ngi gis fii afficheur bi maintenant afficheur bi dafa am euh, boo xam on l'a payé sur le marché mm-hmm. donc moom température rek lay gérer maintenant ñun suñu xam-xam fi ñu ko bëggoon andi mm-hmm. mooy euh, gestion électronique donc fii fii dañ koy gérer avec li ñuy système Arduino mm-hmm. maintenant Arduino bi da ngay gis ci kaw par exemple euh, température bi ak euh, humidité bi température donc fi lañ donc euh, le circuit imprimé mhm. def placer une composante parce que fini c'est une couveuse automatique mhm. de 500 d'une capacité de 500 mhm. madame day jusqu'à 500 donc Arduino bi gérer tout ce qui est température ak humidité maintenant retournement bi également. Arduino bi moom moo koy moom gérer. donc lépp fii lañ ko defaree. Mhm. donc avec euh, le collègue euh, Diémé. Mhm. moom moo defar donc circuit imprimé bi. Mhm. avec euh, def programmation bi Arduino. très bien voilà. très bien. premier prototype la. Mhm. mais am na yeneen yu ñu defar donc mhm. dugal nañ contrôle bi et tout ça. Mhm. bii dañ ko conserver juste comme. mooy produit bi njëkk a voilà exemple bi njëkk a génnee. très bien moo tax bëgguñ ko laal. ah mais lii moom euh, des na tuuti defe naa ni euh, ci réew mi jaratu ñuy. ganaar yi ngay fee gis fee ci ginnaaw. fii lañ tojee yi nii ci couveuse bi lañ tojee. ñu toj. ñoo mel ni voilà. madame madame teel ma tuuti tablette bi alphabet bi s'il vous plaît. joxal joxal madame. madame <laughs> ah! donc ganaar yi ñoom ñoo pondre euh, nen ok te ça des œufs parce que ci y a des mâles quoi donc te ganaar yi bëri am na ñoo xam ne ci couveuse bi lañ jógee quoi ci ganaar yi ah ça c'est bon travail vraiment. bi moom euh, dañ ko war a agrandir ñu dem ba am ay couveuse yoo xam te ne koñ ba koñ lay doon quoi point point ay couveuse yu jël ay mille contenance wala lu ko ëpp ok donc voilà donc y l'engagement quoi et ça moom mhm. si waaw ah, beneen couveuse ngeen di defar ni ah bii moom da ngeen ma koy jox moom ma yóbbaale bii moom maa koy yóbbaale <laughs> su paree assez bien macha allah Merci beaucoup.